آه، وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما ينوي واجبر الكسر نب دي زيار نب دي نيان نب جام دي نيو غين سوني دار سو جروم نيتيل سي تيري بي دي الياقوتة الفريدة في الطريقة التجانية آه، دنگ بو سيدي محمد بن عبد الواحد النظيف التجاني المراكشي رضي الله عنه وارضاه عنا به امين ني ورا دالاي تاي وخم جمنان وبشر محبنا بكل سعادة وخير ولاية قبيل المنية وبشر محبنا بكل سعادة وخير ولاية قبيل المنية ومن سبنا ولم يتب مات كافرا فويل لمن قد سب جنبي وعطرتي ومن سبنا ولم يتم مات كافرا فيا حسرة لساب جنبي وعفرتي وقد ضمن النبي ذلك يقظة بوعد صدوق منه صونا لحرمتي وكنت قسيم النار مثل أبي حسن فويل لمبغض لنا ولفتيتي كما ضمن الغنى له ولنسله ومعرفة المولى بفضل ومنة كما ضمن الغنى له ولنسله ومعرفة المولى بفضل ومنة ومن أدرك التكليف منهم يشف منهم يشفع لدى ألف ألف من رجال ونسوة ومن أدرك التكليف منهم يشفع لدى ألف ألف من رجال ونسوة ويكتب تسبيح العوالم كلها لخادمهم غدا يفوز بجنتي حق قدره ومقدار عظيم من وبشر نغا بقل وبشر بغل المحبنا عجب بغسنو بكل سعادة تبو متتخي بكل سعادة تبو بكتخي شيخ تيجان نكيب كنجو بغنون سيدنا شيخ أحمد التيجاني ننكو بغل تبو بكتخي كوك تخينا غمو تتخي موي أمنا سعادة الأبدية أمنا سعادة أبدية تيادنا أكتش الله خير دينغا وخبي كون وبشر بغل المحبنا عجب بغسنو بكل سعادة تبو بكتخي wa xayri wilayatin wa bégalal ku ñuy bëgg ba tey ci lan mu ne bi xayri wilayatin ñu xasab baaga rek bégal ko ba tey ci xayri wilayatin ci gën ci wilaya wilaya nag nuñ ko xamee ñaar la wilayatul aama wilayatul xaasa wilayatul xaasa moo gën wilayatul aama kon ku bëgg Cheikh Tidiane si wilayatul xaasa ngay bokk na nga bégal ku ñu bëgg ci xayri wilayatin kañ la koy am mu ne qubaylal maniyati balaa dee daal dana nekk wali moom képp ku bëgg Seydina Cheikh lillaa dégg nga képp ku ñu bëgg lillaahi fillaahi laa li garadin dégg nga bëgg ñu ngir benn intérêt waaye dañoo bëgg rek ngir yàlla képp ku yàlla dafa loolu Cheikh Tidiane da nga nekk waliyu bala ngaa dee kon wa bashir bégalal muhibbana aji bëgg suñu bi kulli saadatin ci bépp ak texe wa xayri wilaayatin ak gën ci wilaaya kañ la ko yaam mën a xubaylal ma niyati njëkk ak deyam ko waylal maniyati njëkk njëkk dee dégg nga léegi da ngay gis ne borom téere bi comme lu ma la waxoon rek moom waxi Seydina Cheikh yi rek lay lay lay lay moom lay nazmu moom lay way moo tax téere bi boo koy jàng dafay mel ni rek yaa ngi tiim jawaahirul maani wala jaamiu wala ifaada macha allah wax Cheikh Tidiane lay lu gën a ëpp ci ay waxam wax Cheikh Tidiane lay nosi li bayti bii mu wax nii Cheikh Tidiane ko wax ne bégalal képp koo xam ne bëgg nañu ba dee ci bëgg ma bégal ko ne kooku texe na texeeg abadiya te képp ku ñu bëgg du dee lu dul ba am na wilaaya boo demee ci jaamiu saydna cheikh ma ngay wax ne abshiru inna kulla man kaana fi mahabbatina ila an maata عليها يبعث من الآمنين على أي حالة كان ما لم يلبس حلة الأمان من مكر الله شيخ جان بيجلين képp koo xam ne nekk na ci bëgg ma ba ba dee ca dégg nga ko yowmal xiyaam dañ koy dekkil mu bokk ci ñu am garantie waaw ak xaal bu mu mëntoon a nekkee ci àddina yowmal xiyaam du fa tiit du fa am benn problème mu ne nag feeg waa amut amul amaan min makrilla loolu moom bokku si moom maanaam amaan min makrilla mooy nga nga yëg na yow am nga garantie nangam rek tax nu la neex nga mooyee yàlla boo ko defee rek génn ci dégg nga wax nañ leen ne Cheikh Tidiane wax na ne képp koo xam ne dugg nga ci tarixa bi dégg liñ ci wax ci ay garante tax nga gaaral sa bopp ci ay moo yàlla sànni sa bopp ci ay moo yàlla da nga mujj bañ ma ba saaga ma ta man ku ma saaga doo deeyee sax limaan bay dem aljana ci biir al maani encore Cheikh Tidiane waxaat ne wa amma man kaana muhibban wa lam yaxud al wirda lam yaxruj min addunya xatta yakuna waliyan kon wa bashir muhibbana bi kulli saadatin wa xayri wilayatin ngi noonu Cheikh Tidiane ne képp ku ma bëgg te jàppul sax sama tarixa bi daf maa bëgg rek ngir yàlla mu ne kooku lam yaxruj min dunia du génn àddina du dee xatta yakuna waliyan lu dul ba nekk na waliyu buy dee dafay fekk mu ànd ak wilaya gu wér sëkk te wilayatul xaas lay doon mooy xayru wilaya dégg ah, ba tey waxaat na ne moom sayidna cheikh na yonent sallallahu alayhi wa sallam axbarani sayidil wujud ne képp koo xam ne bëgg na ma kooku laa yamuutu xattaa yakuna waliyan xataan beneen wax képp ku ma bëgg doo dee lu dul ba nekk nga waliyu ak waliyu xataan la fal force da nga nekk waliyu bëgg Cheikh Tidiane rek wilaaya la dégg nga wax bi ci ci jaamiu Cheikh Tidiane waxaat ne qaala lii sayidul wujudi sallallahu alayhi wa sallama anta xabibi wa kullu man ahabaka xabibuna dégg nga wa damintul wilaya li kulli man ahabaka walaw kaana ala ayi xaalatin yow Seydina Cheikh sama soppe nga képp ku la bëgg sama soppe la te warlul naa wilaya képp ku la bëgg ku la bëgg rek wëlli wi lay doon kon moo tax mu ne wa xayri wilayatin xubaylal maniyati moom lay borom mun ye di wax ne walan yamuuta man yuhibbu cheikhana illaa ida naala wilaayatal muna ku bëgg Cheikh Tidiane du dee lu dul am na wilaaya gi ñëpp bëgg te mooy wilaayal xaas dégg nga Cheikh Tidiane ne wa bashir bégalal muhibbana aji bëgg suñu képp ku ñu sopp bi kulli saadatin ci bépp texe ci àddina ak ci àllaaxira wa xayri wila wa xayri wilaayatin ak gën ci wilaaya dana ko am qubaylal maniyati balaa dee dégg nga kon nga gis ne loolu wax jooj mu ngi fees tepp ci biir jawaahir ak jaamiu waxi sayyidina cheikh la radiallahu anhu borom téere bi teg si ne wa man sabbana képp ku ŋàññi nañu képp ku ñu saaga walam yetub te tuubul ca saaga ga delluwut gannaaw maata koog dana mu dee kaafiran maata deena kaafiran ci ak kéefir mu ne nag fa yaa xasratan xoonam ak perte lisaabin ñeel aji ŋàññi ñeel aji saaga jën bii sama côté man sayidna cheikh wa itrati ak sama famille te cheikh Tidiane bu waxee mooy ahlu tariqa foofu nag dafa am ñaari riwaaya maanaam am na téere yoo xam ne lu def mooy wa man sabbana walam yetu maata kaafiran fa yaa xasadatan li saabi jën bi wa itrati am ñu def ne euh, dégg nga wa man sabbana walam yetu maata kaafiran fa waylun li man qad sabba jën bi wa itrati ñaari wér kon man waman sabbana képp ku ŋàññi nañu ñun sayidna cheikh ak samay taalibe yépp walam yetub te tuubul maata kaafiran kooku dana mu dee ci kéeféer du dee ci lislaam mukk fa yaa xasratan onam ak perte li saabi jën bii ñeel aji saaga sama côté mooy ku saaga man cité ma man sayidna cheikh saaga ma wa itrati wala nga saaga sama itra mooy samay taalibe parce que Cheikh Tidiane waxoon na ne yonentu wax ne ma ne ma waxal say taalibe buñ lorante ndax lu leen di lor daf may lor kon boo saagaa taalibe Cheikh Tidiane yi men saaga nga yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo tax ngay xaalaku rek waaw am na kenn si taalibe Cheikh Tidiane gu Cheikh Tidiane waxoon na ko aadayta nafsaka wa aadaytanii fi ashaabi lor nga sa bopp lor ma si lor nga sa bopp loraale ma te si samay taalibe rek nga ma loree ci nga loree sa bopp kon beneen riwaaya bi moom dafa wax ne fa waylun dégg nga xuru mbugal li man ñeel ñeel na képp koo xam ne kat sabba jën bi saaga na ma man cheikh wa itrati wala mu saaga sama sama sama sama famille mooy samay taalibe cheikh tiyan bu ne ittira wala fitya eh, buñ ko waxee cheikh tiyan taalibe bi lañ ci nam dégg nga lu dégg wax bi kon wa man sabbanaa képp koo xam ne saaga nañu wala walam yatub te tuubut maata kaafiran kook dana mu dee di xéeféer fa yaa xasratanoo dama perte gu mag li saabi jën bi ñeel aji saaga sama côté ñeel ku ma adressé man Cheikh Tidiane saaga ma wa itrati wala nga saaga kenn ku bokk ci man noo munta def doo deyaaleeg lislaam wa qad damina garante na annabi yonantu bi daalika loolu yaqdatan ci yeewu ci yeewu laa gis yonantu sallallahu alayhi wa sallama yonantu na ma képp ku la saaga te tuubut du dee ci mu ne war warlu na ma ko bi waadin ci waad ci dëhël saduqin gay aji dëggu min hutukee ci yonantu bi dëhël la gutukee ci yonantu bi goo xam ne maanaam waadun laa taxalaf waaw waadun saduq la lu tax yonantu garanti ma loolu mu ne saw nan ngir ñoŋeel li xormati sama xorma ngir dafay ñoŋeel sama xorma maanaam dañ ma war a xormaal loolu moo tax say yonantu wax ma ne képp ku la saaga bu tuubul saaga ga du dee ci lislaam ci kéeféer lay dee dugg safara direct xaalidan fiha te ku dee ci yéeféer da ngay béel safara kon saaga Cheikh Tidiane dafay béelloo nit safara dégg nga wax bi lii tamit comme nu ma ko waxee woon ba tey Cheikh Tidiane ko wax boo demee ci jaamiu la yaakaar naa Cheikh wax na fa ne euh, dégg nga yonantu wax na ma ne inna man sabbaka walam yatub laa yamuutu illa kaafiran képp ku saaga yow Cheikh Tidiane te tuubut du dee lu dul xéeféer lay nekk door a dee mu ne ba ma yonantu waxee wax ji ah, qultu lahu ma wax yonantu na ko inna alaarifa billahi saydi abdirahmani alchaami dakara anna alxaaja laa yamuutu ala suui alxaatima fa qaala lii sayidul wujudi sallallahu alayhi wa sallam man sabbaka walam yatub maata kaafiran walaw xajja wa jahada mu ne yonent ba ma waxee na ma képp ku la saaga te tuubu dana dee ci yéeféer ma ne yonent bi na ko gis naa eh, aarifu billahi sayda abdurahman shaami gis naa fu mu waxee ne ku xaj màkka du dee ci suwul xaatima maanaam du dee ci kéeféer ku aj màkka dootoo dee ci yéeféer yonent ne ma man sabbaka walam yetub maata wala walaw xajja wa jaahada yow Cheikh Tidiane nag ku la saaga te tuubut dana dee ci yéeféer donte xaj na jihaad na na jihaad na xaj màkka na def lu ne waaye bu la saaga eh, ci kéeféer lay mujj dégg nga wax bi waaye nag borom xam-xami tariqa bi ne bam des ahlul bayti ku bokk ci ahlul bayti maanaam af sharif te néew na nag ak sharif koo xam ne deret yonentu la wala sax amut kuy saaga yonentu sallallahu alayhi wa te fekk sharif nga loolu amut parce que sharif yi yàlla sax moo leen kii loolu loolu loolu loolu loolu nit ku xiis rek benn waay joo xam ne xamaan na sax doo doom ju xaraam la ma xamaan na sax du doomi yoon ñuy rek ñooy bañ Cheikh Tidiane kon moo tax borom xam-xam yi ne ila an yakuna sharifan min ahli lbayti fa innahum la yamutuna ala alkufri wa in amilu min adunubi ma amilu li annahum mutaharun lu dul nag kay saaga Cheikh Tidiane dafa nekk sharif bu dee sharif la moom même bu saga Cheikh Tidiane ak lu mu munta def ci adina mom du de ci yefir mom Cherif mom du de mukk lu ruti iman ak lu mu munta def ci adina nak mom buy de mom iman bu ma seuk lay deeyaale parce que ñom mutahharuna lañ de nga wax bi kon kep ku saga Cheikh Tidiane yi te tuubut ko ak lu mu munta def ci mbax na xamna yakuna ci kéeféer lay de Cheikh Tidiane wax na ca ifadatul ahmadiyya waxul sax saaga de waaye daf ne man saratu musibatuna fal jannatu alayhi haram képp koo xam ne suñ musiba da nga ciy bég rek Cheikh Tidiane nag moom yàlla fegal na ko musiba yëpp moom taxut boppam taxut muy wax waaye képp ku biig si musibaay taalibi bi sax fal jannatu alayhi haram kooku aljana haram na ko bég rek dégg nga ma ci musibaay Cheikh Tidiane wala musibaay taalibi Cheikh Tidiane yow xamal na yow dootoo dugg safara léegi nag waman sa banaa walam yetub googu lu jara bàyyi xel mooy borom xam-xami tarixa bi dañuy wax ne man xadara man yasubuhu wa itratuhu ka man yasubuhu dégg nga in radiya aw sakkata walam yarudu alay ku teew fa ñuy saagaa Cheikh Tidiane wala ñuy saagaa ke wala fa ñuy saagaa kenn si taalibi Cheikh Tidiane nga teew fa toog noppi radduhoo ñu ne yow boobaa yow ak ki koy saaga yéen a yam yow tamit nga saaga doo dee si liimaan waaw ah, moo tax fu ñuy saagaa Cheikh Tidiane boo fa nekkee moo xam groupe la moo xam lu munta nekk na nga rad wala nga quitté groupe bi dem si yoon waaye bu fa toog di déglu ñuy saaga Cheikh Tidiane di ko wax lu ñaaw vocal bi ñëw nga déglu ko naan hey déggal kii lu mu wax jëlaat beneen vocal déglu ko doo quitté groupe bi boo munta tont ah wala nga nekk si YouTube bi di seetaan koo xam ne mu ngi saaga Cheikh Tidiane nga toog rek téye sa téléphone nu yuq di ko seetaan yow doo rad doo def dara da ngay yow ak yow ak moom a xem moo tax man xadara man yasubuhu wa itratuhu ka man yasubuhu ku teew fekkee ñu koy saaga dégg nga mu ne in sakkata walam yarut ali boo noppee radduwoo defoo dara yow moom a yem képp dégg nga wax dégg nga wax bi moo tax li li gën a xóor mooy yow bul saaga waaye bul fekkee fu ñuy saaga la waykat bi waxoon ne inna salaamata min salma wa jaaratiha alla tamurra ala xaalin bi waadiha pour daal nga mucc si salma ak dégg nga dëkkandooram ba mooy bul jaar si côté sax salma xurwa salma dëkkee bu ko sax jege waaw bul jege sax xurwa waaye booy romb-romb li si peeg bi bu yàggee rek nga dugg moo tax bul fekkee fu ñu koy saaga te loolu xisaab euh, sayda abdourahman Shinqiti bi ku nekk dégg na ko moom mu teewoon fa ñu saaga a Tidiane noppi ak géwantu gam ci am ba loola sa la jëlee feebaru deem yaakaar naa lu siiw la jërul ñu ciy guddal dégg nga ñàkk tontu moom daf lay daf lay boole ci gaay de دينغا نياك رياسير ا آه، غيسغا سيدي محمد عبد سيدي محمد عبد الله الجيلاني بغا شيخ تيان دي واخ وخم جوجو نانكو موسما فوك نا داغا داغا تيو سي بلاص ني فاي فينال سما نياوتيف غا نوبي دو تونت كون نياكو تونت دالاي دالاي دالاي توروخال واي تونت نك دالاي ييكتي باسكو موم واخون نا آه، سيدي آه، محمد عبد عبد الله الجيلاني نكو lan moo tax nga noppi tontuloo ma lu toq sa xol ta teew watata ko fil jawab nga rafetal tont ga boko defon de wa tartaqi fihi raqal ula boko defon de da nga yéeg ci yigu waaye kawe ya maanaam ñu wax Cheikh Tidiane dara yow nga tontu lol da lay yéegal da lay ay yenen de nga motax tax mag ñi anhum ñom xamoon nañ lol ba wuñ ko laal Cheikh Tidiane ñu noppi setal Baay khalifa ba mi rad ibnu Mayaaba mu horo moma ca biir radd ba baa xalifa ma ngay wax naan aradtu nafsiya ila tiaani wal qurbi duuna wal wal wal darbi laay wax aradtu nafsiya ila tiaani wal darbi duuna cheikhina tijaani gaaral naa sama bopp jëm ci jamante bu mbiri haajoo jamante ma jamante wal darbi bu haajoo dóorante ay are ma dóor doona cheikh tijaani walis ngay àgg cheikh tijaani ku jug jëm ci cheikh tijaani daal boo bindee ma bind bu fekkee da ngaa bëgg a jamante ma ak yow bu fekkee da ngaa bëgg a dóor ma ak yow waaye doo àgg Cheikh Tidiane mukk tama ne fi kaa nga ray ma jàll te te kenn mënu koo ray si noonu Cheikh Tidiane ku ñëw ma ray la xalifatul haaji bàyyi ñu la mu waxoon moom tamit nu man yasubbu tariqana fa ladayhi miqwali wa ñun du ñu laalaanu laayeynu duñ nooyalanteeg man yasubu tariqana kuy saaga suñ tariqa bi amuñ li ñu nooyalanteeg yow dañuy ñagasal bam saf-saf fa ladayhi yaxbutu miqwali wa lisaani te kuy saaga suñ tariqa bi kooku mooy xam sama ñaawug làmmañ ak sama ñaawu wax fa ladayhi yaxbutu miqwali wa lisaani danaa ko waxu ju ñaaw moo tax nga gis bàyyi radiallahu anhu ba muy radd ku mel ni ibnu eh, ibnul muwaqat xawma waaju xiis jooju lu nekk la ko wax ay latiq euh, euh, ni ñu koy waxee laqiit laqiit laqiit mooy koo xam ne ndeyama ko jur ba pare sànni ko maanaam kuñ jur si lu dul yoon ba pare sànni la mu ne ko yow laqiit nga tuddee na ko euh, dégg nga abnaawul baga ibnul ya yow yaay doomi cege yi bax yu bu ko arab waxee mooy kuy jaay boppam ñu koy fay alal di ko dee mu ne ko yow doomi bax yi nga maanaam sa ndey ba la hmm, caga la tuddee na ko xinsiir tuddee na ko kada wa kada moo tax mu ne fa ladayhi yaxbutu miqwali wa lisaani kuy saaga Cheikh Tidiane wala di saaga tarixa bi kooku mooy xam sama ñaawu làmmañ dégg nga wax bi kon wa man sabbana walam yetub maata kaafiran fa yaa xasratan li saabi jën bi wa itrati kuy saaga ku may saaga wala ngay saaga samay taalibe وكنت قسيم النار وكنت نكنا من سيدنا شيخ قسيم النار لأجي سدل سفرة من ما قسيم النار مثل مثل أبي حسن كم نيغا خامني موم لا ابي حسن نيكي وون دي قسيم النار تموي سيدنا علي دنگ فويل تسكاري فويل قرم بوغل لمبغض نيال بيب اجي باج لنا نيال نيو كيب كوما باج ولي فيديتي اك سما اك manam sama sama njabot kep kuma ma bañ wala nga bañ sama njabot moy sama taalibe ak sama dom yep ci lañ dugg koku mbuga rek nu mënta def ñu mbugal ko de nga wax bi kon fa ana khasimun nari xam nga sayyidna Ali mom la yonent waxon nako yow Ali yow ya khasimun yow ya khasimun nar de nga man ahabbaka al aljanna wa man abghadaka dakhala an-nar kep kula bëgg yow Ali dana dugg aljana képp ku la bañ day dugg safara Cheikh Tidiane nee na man nag maay xasimu naar comme Seydina Ali maanaam wiraasa googu maa ko am sama maam Seydina Ali moo tax Cheikh Tidiane wax ca ifadatul ahmadiya ne aqulu lakum kama qila fi ali ibni abi talib radiallahu anhu huwa qasimu naari nañu waxoon Seydina Ali ne ko yaa xasimu naari maa ngi koy wax sama bopp ne maay xasimu naari Cheikh Tidiane ne man ahabbana yuqaalu lahu duxulil jannata ومن أبغدنا ومات على ذلك يقال له دخل النار كيف كما بغ ني واخ لا الجنه واي كيف كما باج با ديسا هلك دنج لا واخ دوغال منو شي دارا نك واو آه، رك دنج واخ بي كون من من ما دون لول سيدنا علي موي وكنت قسيم النار من ماي اجي سدوك سفر مانا ماي سدل ني جيم سفر ني جيم الجنه مثل ابي حسن ماغي مني باي حسن ماي سيدنا علي nga xam ne ku ko bëgg moom Seydina Ali waa aljana nga waaye ku ko bañ ak koo muntu doon waa safara nga moom yonent Cheikh Tidiane tamit noonu la demee fa waylun tuskare fa waylun xuru mbugal li mubghidin ñeel na aji bañ la na ñeel ñu wali fidiyat yi ak sama njaboot képp ku ma bañ wala nga bañ sama be noo mënta def safara nga jëm Seydina Ali moomu eh, dégg nga moom la yonentu wax na ko yaa xasimu naar ku la bëgg dem aljana ku la bañ dem safara yonentu wax na feneen seydna ali ne man kuntu mawlaahu fa aliyun mawlaahu allahuma waali man walaahu wa aadi man aata képp ku ma nekk di sa sang di sa kilifa aliin sa kilifa la képp ku may sa kilifa rek aliin sa kilifa la kenn génn si nag abubakar rek keneen na ci am kon mu ne nag allahuma waali man walaa yow yàlla na nga méngoo képp ku méngoo ali waaye na nga noonoo képp ku noonoo ali yii yëpp nag dafa dëggu seydna cheikh radiallahu anhu moo tax yonentu waxaat si Seydina Ali ba tey ne dégg ahabba aliyan faqad ahabbani wa man abgada aliyan faqad abgadani ku bëgg aliyin mën nga bëgg waaye ku bañ aliyin mën nga bañ amul benn werante lii it yonentu wax na ko Cheikh na Tijaani radiallahu anhu moo tax Seydina Ali waxoon ne walladi dégg nga fallaqa alhabbata wa bara an nasamata innahu la ahdu nabiyi al amini sallallahu alayhi wa sallam ilayya أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق Seydina Ali ne lii dëxal la gu jigee ci yonantu yonantu moo ma wax ne ma yow Ali kenn du la bëgg lu dul ab jullit waaye kenn du la bañ lu dul ab naafeq kon képp ku bañ Seydina Ali nag njabootam naafeq nga loolu yonantoo ko wax waaye képp ku leen bëgg jullit xaqan nga Seydina Cheikh radiallahu anhu kadalika ku ko bëgg jullit nga ku ko bañ ak koo munte doon ab na naafeq nga rek te doo dee sax si liman dégg nga moo tax léegi nag nga ñu taxaw foofu tuuti ngeen xool ñi nga xam ne tey ñooloon loon bañ Seydina Ali bay taxaw ci kaw min bari di ko saaga ñooy foo leen di classé nga xool ñu bañ Seydina Ali ba ba doomam ku mel ni Yazid Yazid ibnu Muawiya dégg nga ak ñam àndoloon ak ñam joxoon ndigal ñi ray Seydina Xuseenu may doomu yonent bi te aliin képp ku ko bañ wala nga bañ njabootam wala nga lor leen wala nga ñàkk leen a euh, dégg nga nangul comme ça def leen ñuy sa kilifa kooku ala kulli xaalin du jullit dégg nga moo tax doo xam daal naka la demee boo waxee gars yi ñu euh, boo ñu naan yësit nangam nangam am na ñoo xam ne fi ñu ngi layal yësit bu baax te yezid mi nga xam ne lu mu fi def kenn xamul nu mu toll dégg nga benn waaykat moom dafa waxoon ne laana allahu man yasubu aliyan wa xusaynan min suuqatin wa imaami ayusabu almutaharuuna juduudan walkiraamu alaabaai wal yamanu tayru walxamaamu wala yamanu wala yamanu alu rasuli inda almaqaami dégg nga wax ji mu ne képp ku ŋàññi Seydina Ali yàlla rëbb na la képp ku ŋàññi xuseynu yàlla rëbb na la dafa wax Seydina Ali xuseynu nag waaye xuseynu Xasan ak Fatima ak keneen ak seen njaboot ñëpp dégg nga mu ne moo xam nag ki leen a benn waay la nii rek wala njiit la moo xam buur la moo xam baadoola la ayas ay yusabbul mutaharuna jududan ndax danañ war a ŋàññi ñi nga xam ne seen maam ñu laab lañ wal kiraamul abaai wal amaami seen baay tëx yéeg seen baay yi nekk ñu tedd mu ne ndax ñooñu war nañ leena saaga waaye lu daw yaram ci biir xasidaam ba mooy fa mu waxee ne yamunu tayru walxamaamu wala yamanu alu rasuli mu ne fii njanaaw yi sax ak pitax yi sax ñu ngi ñu ngi xuulu maanaam am nañ kaaraange mais njabootu yonent bi lu tax mënuñoo am kaaraange te loolu si si si jamonoy dawlaay eh, Yazid di rey rek seti yonent bi ñëpp daanaka mu rey leen hmm? ورنكو ربو نانغام نانغام باي يزيد بن معاوية لعنة الله عليه وكو يالا كون جك ربو سيدنا الشيخ رضي الله عنه دنگ موم دلان ربو يزيد بن تدان يزيد زي كنمام فكي كوكو تدو وخور لعنة الله سيدنا الشيخ داي وخ لعنة الله عليه وخكو تكاونك داي دنگ دنيا وخنا سيدنا الشيخ رضي الله عنه ما ذكر مرة يزيد بن معاوية عنده إلا ولعنه mës ñoo tudd Yazid ci kanamam lu dul boobu wax na ne laanatullahi alayh wa ida dakarahu ahadun fi majlisihi doona an yalanahu baadara ala alfawri ila laanihi jëhran bu kenn tuddaan Yazid te waxoo laanatullahi alayh Cheikh Tidiane day gaaw wax laanatullahi alayh jëhran wax ko ci kaw ñëpp dégg ko pour xam la ne Yazid dañ ko war a rëbb dégg nga Yazid dañ ko war a rëbb moo tax ci ifaada Cheikh Tijaan dafa wax ne yazid ibnu muawiya mal'un li qawlihi taala inna alladina yuduuna allaha wa rasulahu la'anahum allahu fi dunya wal axira wa aadda lahum adaban muhina mu ne yazid kooku ku rëbb la parce que yàlla dafa wax ci alquran ne képp ku lor yàlla ak ab yonentum yàlla rëbb na la ci àddina rëbb la ci àllaaxira te parawaareel na la mbugal mu doxat mbugal mu métti dégg nga léegi Cheikh Tidiane ne wala idaayata lahu sallallahu alayhi wa sallam azamu min qatli waladihi dara gënta rey rëy lor yonantu amul lor yonantu gu gën a rëy nga rey doomam kon Yazid la Cheikh Tidiane wax ne moo joxe ndigal ñu rey Xuseyn kon dara gënta rëy loolu dara gënta rëy rëy loolu te Yazid moom ba tey ci biir nguuram ku nekk xam na dégg nga lim defoon Màkka ak Madina بام هبالي مسلم مسلم مسلم مسلم ابن عقبته بام كيبالي تا ماكا مدينه نكو مو داغانال مبيريا غاي نيك فا مانام بيب جيجين كو فا نيك تدي نين لا شرفا ويك نين ني باخ ني ني راي لين دنگ كو ديف لول ييب سي دين جي با بار غاي امنا ньо خامني نيون لاي نيون لاي نيون لاي نيون لاي آه، تسكيال دي لكي موتا واي كات بو واخون ني ليت شعري ماذا يقول يزيد wa cutaatu bani umayyata kullan kayfa yastumuuna albariya adiyan rabbi xudhum jamian axdan wabilan mu ne layta shiir yi man de waroon naa xam maada yaqulu yazid yazid lan lay wax wa cutaatu bani umayyata kullan ak way bew yi bokk ci ngiiru bani umayya ñoom ñëpp lan la ñuy wax buñ dajeeg yàlla ëllëg lan la ñuy wax buñ dajeeg yonentu kayfa yastumuuna albariya aliyan naka la ñuy saagaa ku dañ set wicc mooy sayidna aliyin ñu digle képp ku taxaw ci mimbar di khutba na nga saga Aliyu na nga saga Aliyu nga xamné yonentu sax diglé diglewut ku taxaw ci ci khutba ci ci ci mimbar di khutba nga saga sax Aba Jahlin ñom ñu digle saaga Seydina Ali way kat bi ne rabbi xudhum jamian aqtan wa bilan ñom ñep nak leen de nga mune rabbi inna yazid sidhu adaban wa sairan ma'al alxajaaji wa xill wa xillan yow yàlla ma ngi lay ñaan yazid yàlla nga ko dolli mbugal mbugalam sair safaraay sair moom ak xajaaj ibnu yuusuf ñoom ñëpp nang leen mbugal ba ñu bëgg a dee wa salaasilan fil jahimi nakaala nang leen gëx ay salsaal nang leen takk bañ bëgg a dee sànni leen safara lu tax mooy ahsanu fihima nabiya wal batula parce que ñoom dañoo dañoo lor yonantu lor doomam fatima ci rey gu ñu rey ay doomi fatima آه، نمسك واستحل ال... العداء ما حرم الله وقد حتكوا حريم الرسول ني دغنا لي يالا حرامال موي بام يوني مسلم ابن عقبه مو مالا وخ ني دم مدينه دم مكه مانام ني دغنا لب دي تدي جيجن ني دي راي ني ني باخ ني لول موي دغنا لي يالا حرامال من ربي فم لبهم جحيما ونارا اغضب المصطفى وبنتا ونصلا yow yàlla na nga feesalee ci ñoom safaraay jahim ñoom yasiid ak ñoom xujaaj ak way bew yi bokkoon ci waa bani umayata ñoom nag leen jël dajale leen feesalee leen jahima wa naaran ak mboolem safara yi ndax ñoom abgadul mustafa wa bintan wa nasla ñoom dañoo merloo yonentu sallallahu alayhi wa sallama waaye dañoo merloo doomi yonentu bu jigéen bi muy fatima dañoo merloo mbooleem naslu yonentu sallallahu alayhi wa sallam mbooleem sax kii surafaaw yi ñooñu nag di défendre ba tey Yezid mi def lu bon lii nga xam ne ma loolu sax waaye Yezid sax dafa weddi yàlla Yezid Yezid sax xéeféer la Yezid am na benn wayam boo xam ne mu ngi wax sa biir way wax gannaaw bu mu defee lii mu def yëpp ba pare di way aw way di di di di di mbëru di wax wax yi bon sa way waaye dem ba si biir way am na benn bayti bu mu wax mu ne laibat haashimu bil mulki fala malakun jaa wala waxyun nazal <laughs> mu ne astaghfirullah mu ne waa waa banu Hachim xam nga banu ñoom banu Hachim lañ bañ ñoom waa banu Mayet na ma yàlla jéggal ñoo te yonentu banu Hachim la ñoom dañoo jàpp ne affaire yi ay nguur la banu Hachim dañ leen a nax def nguur mu ne laibat Hachimu bil mulki def leen mu ne Hachim mooy waa banu Hachim dañoo dañoo joué ci nguur gi bil mulki waaye fala malakun jaa wala wahyun nazal luy yonentu bi dañu naxee naan ñu dégg nga malaaka mi ñëw na jibril ñëw na ne ma nangam mu ne wala malakun jaa benn malaayika ñëwut wala waxyun nazal benn wax waxyu wàccut yonantu bi dañuy wax rek dégg nga loolu moo tax ba yonantu bi gaañoo ñu bañoon Seydina Ali nekk ba affaire ak Seydina Ali ñu siisu bañ mu nekk euh, euh, dégg nga buur julli di parce que ñoom affaire ay affaire nguur lañ ko foog léegi bañ nañ mu dugaat ci waa Banu Hashim parce que seen gëm-gëm mooy Banu Hashim dañ leena nax ba nek seen bour di len ki yonentu dal ben bour la bu nekkon ci ñom waye gëmuñ ne sax yonentu la motax mu ne laibat hashim bil mulki fala malakun jaa wala waxyun nazal ku wax li nokay koy défendre te motax Cheikh Tidiane ne Yazid ibn Aawiya mal'un mal'un mal'un mal'un denga ak yenen yu ñaaw yum def yu bari kon duñ ci guddal legi nak Ah, kon mu ne wa kuntu qasima naari man maay aji séddalikub safara misla abi hasan comme nu sayidna ali nekkee woon di qasimu naar yonentu na ko képp ku la bëgg dem aljana képp ku la bañ dem safara man sayidna cheikh képp ku ma bëgg waa aljana nga képp ku ma bañ waa safara nga ak loo munta def ci mbaax ak koo munta doon lépp sippeeku na fa waylun xuru li mubidin li aji bañ la naa wali fidyeti hii ak samay ndaw ak sama ndaw samay ndaw manam ak samay taalibe dégg nga lan moo toog ba denga mune mu ne kama damina alghina lahu wa li naslihi kama dhamina kum nikila warlo mom yunus sallallahu alayhi wasallam alxinaa كوم له نيل سيدنا Seydina رضي الله عنه سيدنا Cheikh يونت موكو دمان نكو ياو دا yow da ngay koomal da nga am xaalis lool moo tax Seydina Cheikh amutoon problème mu wërsëg ku amoon wërsëg la macha allah waaye ku bëri woon lu muy dundale la wax na benn biir sax ne man naa dundal juróom-ñaar fukki kër bët bu set ndax nu nu riche te yonentu moko garantie won mu am wërseuk دينغ كما ضمن الغنى له كم ني يونت غارانتي اك ور كوم له نيل شيخ تيجان ولنسله اك نجورم موي اي دومم اي دومم ميت يونت داف لينا دمان لون ورسك ومعرفه المولى اك خم يالا خم يالا يد يونت داف داف كو غارانتي نجابوت سيدنا شيخ بفضل تي سلو غنيل ومنته اك خيو رك بو توكي تي يالا لو بن سبب لو ولا dégg nga mais yàlla moo leen yonentu moo leen garante ñoom njaboot gi ne danañ xam yàlla képp si njaboot ak Cheikh Tidiane yi danañ àgg ci maarifatu billaahi te loolu garanti bi yonentu la sallallahu alayhi wa sallam léegi kamaal min al ghina lahu ni la waxoon ba tey Cheikh Tidiane la rek wali naslihi Cheikh Tidiane wax na ci jaamiu ne damina sallallahu alayhi wa sallam al ghina maa dumtu hayyan yonentu garanti na ma koom feeg maa ngi dund damay koomal wali awlaadi wa awlaadi awlaadi ak samay doom ak samay doomi doom maanaam samay doom ak samay sët ñoom ñëpp ay bërëmi wërsëg la ñu doon kenn du si ñàkk dégg nga ànd ak loolu sama njaboot yëpp dañuy àgg ci maarifatu billaahi du am benn aami buy nekk ci sam ku bokk sama deret dégg nga wax bi bu baax kon kamal daminal ginaaluhu wali naslihi xam nga kuy oote jëm la ci yàlla dafa bokk ci sartaay oote jëmle ci yàlla nga koomal kuy oote di jëmle nit ñi ci dafa war am dafa war a am wërsëg dafa war a am wërsëg wër ta ñàkk boo demee ci rimaax borom rimaax wax na ci lu yaatu kon moo tax sufiyanke yi dañu daan wax ne min charti daa'i ila llahi taala an laa yakuna mutajaridan an dunya bi an taxlu yadduhu minha kuy oote jëm ci yàlla wër taraf la ci àddina manam loxoom yi féex amu dara léppam dañ ko koy gàddu muy ñaan ak a leb kuy oote jëm ci yàlla waru koo def wërta manam loolu bokku ci sartaay bokku ci mat ci kuy oote daal manki la ñu ne lu tax mooy wa dalika li annahu yahtaju dururatan ila suali nnaas force dafay aajo di laaj nit ñi imma bil xaali wa imma bil maqali benn muy laajee nit ñi ci xaalam mooy nit ñi xool ko gis ne sonn na yéréemi ràpp yi ndeysaan nanga mam yi maam sa xaal tax nit ñi di la jox ndax sa xaal bi dafa dafa dafa bisaar trop da nga ñàkk ba mu sa xaal wa imma bil maqal wala moom sax muy wax nit ñi naan ah eh, yow doo ma dimbali foofu si benn nangam dégg nga te ñu ne nag wa isaxtaaja ila nnaasi haana alayhim wa qalla nafcuhum bihi bis bu ootekat bi demee ba aajowoo nit ñi ba nga xam ne dépassam si nit ñi la koy amee lu mu bëgg a def paas sax toxalu bu ko bëggee def dana dem ñaani paas wala mu àbbu ko bu xëyee ne diw ah dépass de amul kër ga bu aajowee nit ñi noonu bu yàggee haana alayhim dafay doxot ci nit ñi nit ñi dañ koy xeeb wa qalla naf'uhum bihi léegi njariñ lu nit ñi war a jariñu ci moom dafay mujjee néew wala sax dootul jariñati parce que nit ñi moom ko amul alal maanaam loo bari bëri xam-xam moom duñ la ko laaj moom waaw te loolu yéen ñëpp xam ngeen ko ñun ñëpp xam nañ ko sax maanaam na nga jàng bañ xam na yow jàng nga dégg nga ñëppay toog fee naa moom koy jàng na moom koy ak am xam-xam waaye kay nangam nangam kenn du la soxla mais boo amee wërsëg nit dana la laaj si masala sax fekk bëggul laa laaj si masala fu bëgg lu yóbbu mais dana ñëw waxtaana la dugg yow fii dugg ak yow fii buy ñibbi nga ne ko ah, am jàpp si lii loolu rek moo ko fa andi waaye yow sa wërsëg wi dana tax nga mën a jàllale sa mission parce que nit ñi dañ la jublu bëgg la ba pare nga mën leen a nag di di di di di jariñ moo tax ñuy wax ne أن من كمال الداعي إلى الله أن تكون الدنيا فائضة عدي بفا بوكو تي ماتا كي اوتي ادنا دي بوبو تي كاوام دا فا ورا ام ادنا دا فا ورا ام خالص دنگا غينا غوغ نك ياكانا دا نيو تي كانام صاح نك ني واخ تي وا تاريخ بي سين ورسغولين يال دي دفالك نانغام نانغام تي لول يم ني دونو كو سيدنا شيخ رضي الله عنه دنگا كما ضمنكم نيكلا ak ñi nga xam ne ñooy euh, njabootam wa maarifatal mawla ak xam yàlla bi farlin ci ngëneel wa minnatin ak xéewal gu tukkee ci yàlla kase léegi kon waa ji dafa war a am wërsëg àddina di bëbb ci kawam ñu ne wa man lam yakun kadalika fa duaahu ilallahi naqisun ku melut noonu amul benn wërsëg na ngay oote jëm ci yàlla wax dëgg yàlla sa oote gi am nga lu la manqué daal maanaam am nga loo xam ne charte la boo amagut mooy wërsëg moom dafa war a xam borom xam-xam ne lu dul nag waajooju wëliyu yàlla bi dafa nekk ci qaddamu Musa maanaam illa in kaana mashrabuhu musawiyan fa man kaana kadalika dégg nga fa ixtiyaajuhu ila nnaasi afdalu min istignaaihi anhum bu fekkee ne nag wëliyu bi ci qaddamul wi la nekk kooku nag moom wax dëgg yàlla mooy ñi ngay gis yenn wëliyu yi ngay gis nga xam ne seen yëpp si nit ñi lañ ko yaakaar yenn saa am ñoo xamne loolu lu ko waral moy dañoo nekk ay musaawi boo nekkee musawi nak mom non nga mëna dundé parce que nettali nañ né yon taala musa jëmm bis dafa ñaan yalla nako yow yalla ma ngi lay ñaan nga komal ma jox ma lu doy wulis nit ñi yalla wahyu ko nako ya musa ama turidu an an u'tiqa bi qadaika raqabatan min nar wa bi ashaika raqabatan minan nar qala bal la ya rabb dafa ñaan yàlla na ko naa komal ba du ma am soxla si nit ñi yàlla na ko Moussa xanaa bëggu heure boo xañee ma goreel ab jaam ci safara boo reeraatee ma goreel ab jaam ci safara Moussa na ko bëgg naa loolu kay ba ma sañoon jaam yàlla yëpp gore ci safara dégg nga léegi nag foofu la ko yàlla diggalee muy def noonu maanaam Moussa nit la woon koo xam ne dalaan topp rek banu Israël tey mu xañee kër kii bu guddee mu réeree ji sa kee suba mu xañee ji sa kële waaye kum lekkee sa kër rek yow goreel nañ la safara kum añee sa kër wala mu reeree fa goreel nañ la safara dégg nga léegi kon Moussa moom jëriñ gu mu war a jëriñ jaam yi mooy mu lekk si seen xalal loolu moo tax moom dalaan dem di añee fii di xaaraan fii xañ reeree ji fële nangamee fële loolu moo tax wali bu nekk Moussa yi da ngay gis wali boo xam ne sikkoo ci wilaayatoom waaye fu mu toll rek mu ngi ñaan laaj nit ñi jox ma dara waay jox ma nangam jox góog ñu koy jox bu fekkee musaawi la yow mi koy jox loolu moo la goreel si safara yow dégg nga waaye wa ilaa loolu moom ootekat dëgg dëgg dafa war a am wërsëg te feeñ na ci ootekat yi bëri ñi nga xamante ni yàlla am nañ isnul xaas ci oote doo si fekk ñaare ku ñàkk mukk waaw dañuy am moom wax dëgg yàlla waaw euh, wa minnati xam yàlla itam Eh, yàlla garanti na ko njabootu sayidna cheikh radiallahu anhu mu ne waman adraka taklifa minhu yashfau waman adraka képp koo xam ne jot na a taklifa képp ko ak kun mat si njabootu cheikh na tijaani yi min eh, dégg nga képp koo xam ne jot na minhu ci njabootu cheikh tijaani a taklifa taklif képp ko àgg ci mat mukallaf ko yashfau dana mu ramm la daa alfi alfin fa junne junne min rijaalin ci góor wa niswatin ak jigéen dégg nga ku àgg ci baaleex ci ci ci ci ci jabootu Cheikh na Tijaan radiyallahu anhu yàlla dana la defal ëllëg danga nga ay junne junne nit ci ay góor ak jigéen nag ci xeetu yoon ci yàlla Muhammad ñoo xam ne safara moo waroon ci ñoom waaye ci mbaax ak yàlla ci njabootu Cheikh Tijaan googu la leen di ràmmee te njaboot Cheikh Tidiane googu góor ñaak jigéen ñaa si am lool masiya la bu leen yàlla defal góor ak jigéen seen ràmm gi tamit dafay matale góor ñi jigéen ñi incha allah moom lay borom mun ye di wax ne fi alfi alfi imraatin wa rajuli yashfau fardun min bani hada alwali dégg nga ci ay junne junne ci ay góor ak jigéen moom lay kenn ci njaboot ak Cheikh Tidiane gi di kenn ku nekk dégg nga am na beneen riwaaya ci Buxya boo xam ne ci mun ya laa wax boo xam ne dafa def fi alfi alfi imraatin wa rajuli dégg nga yashfau min bani hadal wali aw kama qaal déedéet yashfau min bani abihi dal wali am na riwaaya bu def wa ala kulli haal daal ñoom danañ ràmm ay junne junne nit wax jooj nag moom gisu gisuma ko man ci wax Seydina Cheikh radiallahu anhu dégg nga kon wa man adraka تكليف منهم ويشفع كيف كو خمنا جدنا تكليف تي نجبوت شاغي دانا رام لدا الف الف من رجال ونسوتي اي جوني جوني تي غور اك تي جيجين ويكتب دسنا بند تسبيح العوالم سبال عالم بي دينغا كلها لب لخادمهم نيل اجي ليغيل لين képp koo xam ne mu ngi liggéeyal doomi Cheikh na Tijaan yi mbooleem luy aalam bi di sabal maanaam garab yaag jën yaag nangam xam nga dara nekkul ci kaw suuf lu dul mu ngi sàbbaalal yàlla loolu yàlla ko wax lépp mu ngi sabal yàlla léegi sàbbaal yooye yow booy liggéeyal doomi Seydina Cheikh sabal yooyu yow dañ koy bindi si sa saxifa maanaam say xasanaat lay bokk sàbbaalug aalami kulliha lépp li xaadimihim ñeel aji liggéeyal doomi sayidna cheikh yi taxaddan hëllëg moom kay liggéeyal doomi sayidna cheikh yi dana mu gañe bi jannatin ci aljana yafoosu dana mu texe bi jannatin ci aljana aljana lay dugg ci ay dégg nga ci bunt bu ko soob aljana lay dugg moom lay borom mun yër itam di wax ne xaadimuhum tusabbixu lbihaaru lahu wa ma fiha kada al mune kuy liggéeyal doomi Seydina Cheikh yi géej yi mu ngi lay sàbbaalal maanaam mu ngi sàbbaal ñeexal la la mi sàbbaal yool bi yow la koy may wa maa fiha ak lu nekk ci géej yëpp ñu ngay sàbbaal di la jox yool bi kadal ashjaaru garab yu ci àddina bi yëpp ñu ngi sàbbaal di la may seen yool mu ne wa yadxulul jannata min haytu ntaqa li ajli xidmati ba nii dal muntaqa kooku ëllëg dana dugg aljana ci fu mu ko neexee maanaam bunt ba mu tànn rek aljana jam tànn rek dana fa dugg lutax li aj li khidmati bani dal muntaqa ndax liggey gum liggeyal ki ñi nga xamne ñoy doomi sayyidna cheikh lool la borom mun ya wax آه السلطان الأصبخ مولاي عبد الحفيظ العلوي شجام العرفان يامبا ما ngay ومن لأهل الختم كان خدما جزاؤه من الإله عظما ني نكو لان لا من كل جيل ني نجبوتو ختم تيجان جي dana am pay gu rëy fa yàlla pay ga la mu ne tusabbihu l ashjaaru kal bihaari lahum wa ma xawat min al atwaari maanaam garab yeeg géej gi danañ la sabbaalal di la may seen yool bi ak lépp luñ laq bu dee garab yi la lam làq ci ay xob ak i bànqaas bu fekkee ne géej gi la lam làq ci ay jën ak rab yu nekk ci biir ak lépp lu yàlla def ci biir géej gi ma ngay sàbbaal te yaa moom متكسنا ولمزيد الفضل يكرمونا من سائر الابواب يدخلونا بوكنا شي لنج دوليار تي غنيل يي نين نيوم ني ليغيال سيدنا شيخ آه، نجابوت سيدنا شيخ موي دانيي دوغ الجنه تي بونتو بولين نيه من سائر الابواب يدخلونا دينغا واخ كون ويكتبو دسنا بند تسبيح العوالم سبالك عالم كلها يب لخادمهم نيل ادي ليغيال دومي شيخ تيجاني ndax si loolu lay xam mu ne déedéet xaddan ëllëg ci àllaaxira yëfoosu dana mu gañe bi jannatin ci dugg jana ñaari wax yi nag man gisuma ko ci wax Seydina Cheikh wax dëgg yàlla waaye gis naa téere tariqa bi daal ñu koy indi waaye gisuma ko ci jaameo gisuma ko ci cawaayir gisuma ko ci feneen fu ñu wax ne Cheikh Tidiane wax na ko dégg nga muy wa man adraka taklifa gi ak wa yuktabu tasbihu waaye lu wér la nag parce que ñëpp magi tariqa bi siqaat yi rek ñoo ko wax ñi nga xam ne siqa lañ lu mu bëgg a wax rek mooy gisuma Cheikh Tidiane wax ko ci boppam amaan yàlla kashfu ko kenn wala leneen leneen leneen dégg nga wa man adraka képp koo xam ne jot na minhum ci njabootu siaga taklifa taklif képp koo xam ne jot na mat na mukallaf yashfau dana ramm la daa alfi alfin fa ay junne junne min rijalin ci ay góor wa nisbatin ak i jigéen am na ñuy wax alfu alfu mooy mooy million rek parce que dañuy wax ne mille dégg nga mille plus mille ñu ne million ñu ne kon dañuy damu million dégg nga waaye lu am daal alfu alfu ay junne junne junne yàlla xam nu mu toll wa yuktabu te des na bind tasbihul awalimi sabbaalug aalami kulliha lépp li xaadimim ñeel kuy liggéeyal doomi sayidna cheikh yi taqaddan hëllëg waa jooja di liggéeyal taal doomi cheikh yi yefoosu dana mu gañe bi jannatin ci aljana dégg nga wax bi kon xaqa qadrihi wa miqdaari al azim subhaana rabbika bi izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ñu neen foofu incha allah ba beneen yoon